Sénégal bu dóoree match bii di ñëw fële ca Malawi day qualifié daal di fekk si Burkina Faso bi nga xam ni moo nekk ci première place bi. gën a dëgëral taxawaayam ginnaaw ba nga xamee ni dem na fekk ji Burundi daal di koy dër 2 à 0. salaam gaa yi nuyu ñëpp jaar ñëpp yaa ngi ci Eowl Sport Eowl comme premier Eowl comme kaasu dose bi lay jëlee ci coono yóbbu la ci cawarte xamal ni Sénégal day dem fekk ji Malawi ngir jongante quatrième journée bi. Sénégal nag mu ngi ci ginnaaw Burkina Faso bi nga xam ne moo nekk ci première place bi te qualifié Sénégal bu dóoree moom tamit day qualifié fekk ci Burkina bi nga xam ni mu ngi dem toog di xaar Coupe d'Afrique bi nga xam ne mu ngi amee fële ca Maroc buñ jugee ci loolu xamal ni Sénégal nag bu jugee ci match bii nii le 10 novembre dina xaar ki nga xam ne moom mooy Burkina Faso ngir ñu jongante fële ca Burkina kon Sénégal am na match bu am solo lool ngir mën a tàqali ko ak Burkina ci première place bi bu dóoree da koy rawee 3 points buñ ñiilee ça dépend ci configuration match bi ñu jëm ndax Sénégal bu dóoraatee score boo xam ne tey jëla toll na ci 3-0 Sénégal day nekk ci première place bi xaar nag jongante bi nga xam ni moom ak Burkina ñoo koy am face fass ngir ñu mën a xam kan mooy woy di nekk ci première place bi fi mu ne nag Sénégal dafa war a wane xar kanam bu bees tàq ginnaaw ba nga xamee ni contre Malawi dóor na ko 4 bi a 0 ci match boo xam ni mën nañ ñi kenn mënu cee natt kenn. ndax match la boo xam ne ki nga dajal ñëpp xam nañu yaa ko mën deuxième chose mu jël carton rouge logique pour logique da waroon ren di jéggi jaar ci kawam dem xooli ji leneen mais nag baax na aussi bu ñu fàtte ni ki nga xam ne moom fi nekk intérimaire la miinul compétition yi nga xam ne moom lañ ko indi ren jii nii mu war a wuutu ki nga xam ne Aliou Cissé en attendant ñuy xooli kan moo fiy nekkam déet tur yu bari ñu ngi jóg nag waaye man awma ci benn information bu wér ni kii moo war a ñëw wala kaamoo moo war a ñëw mais ku ci nekk am nga sa bëgg-bëgg nag da ngeen ma koy wax ci commentaire yi en ñu xool kan mooy ñëw remplacer ki nga xam ne moom mooy Aliou Cissé mi fi jógee. Cucurella xam na leen ni daa saw tubayam ngeen baal ma ci wax ci ci euro bi ñu génn ginnaaw ba nga xamee ni Allemagne ak Espagne ñu ngi jogante ci quart de finale bi ci match boo xam ni Espagne moo koy mujjee gagné ci deux buts à un. média anglais bii di The nag moo fësal kàddu yooyu nga xam ni mu ngi jugee ci Cucurella Cucurella yokk ci ni dafa dégg arbitre bi ne carrément penalty yi amul. Transfermarkt nag xam le na ni. buñ demee ci équipe nationale yi ñu boole seen joueurs yi ku ci nekk li ngay jar Angleterre moo gën a seer la effectif bi nga xam ne mu ngi toll ci un milliard quatre cent soixante huit France topp ci Portugal ñëw ñooñu ñooy podium bi gis nañ ci Espagne ak Brésil mu nekk lu jaadu buñ demee nag ci ba yegg ci vingt bi ña ci topp di nga ci gis Uruguay di ngi ci gis Côte d'Ivoire waaye doo ci gis équipe bii di Sénégal mu lay wan ni Sénégal tamit effectif bi wàcc na ak doole diggante Coupe d'Afrique mujjee jël ak jamono ji ñu nekk. équipe bi doole ji wàññeeku na ndax boo demee sax xool classement mondial bi tamit Sénégal da cee gën a arrière kon nag Sénégal yoratul joueurs yi gën a seer fii ci Afrique ndax Nigéria mu ngi fii Maroc mu ngi fi Côte d'Ivoire mu ngi ci Sénégal bokkul ci vingt premières yi. Premier League bi nag def nañ benn publication ci seen page Facebook wane ni Alan moo ëppale but ci saison pour l'instant kii di Bukayo Saka moo ëppale passe clean sheet Onana moo ci ëppale tir jëm ci camp Alan moo ko ëppale. occasion créée Bukayo Saka benn rek moo ëpp lim def ci ay paas paas yoo xam ni waxuñ paas yu jur bii waaye ay paas rek tacle gagné Wilfried Ndidi Lisandro Martinez ak Virgil van Dijk ñoo ëpp li ñu bloqué ay paas kii di Flynn Downs moo ëpp lu mu daw ci terrain yi kon lii moo gën a fës ci Premier League bi ca statistiques yoo xam ni ay joueurs def nañ ko ci saison bi ñu nekk di 2024 2025 bu ñu demee ci côté bii nag ñi ko ëppale Man City def na bi buts Chelsea def 16 Arsenal def quinze ñooy ñi nga xam ni ci podium bi ñoom ñoo fa nekkee ci côté bu Give Me Sport xam na ne kii di Bruno Fernandes ba muy soog a ñëw fële ca Manchester United Pogba daf ko jege yor benn kaye daal di koy laaj fan nga bëgg a dëkkee ñaata nga bëgg a fa kër wala appartement ci la tànnee ñetti bërëb yoo xam ni daf ko wax ne ko baax na bu subaa daañu ñu ànd daal di koy xooli loolu di wane baa ni nga xamee ni yombal na intégration kii di Bruno Fernandes fële ci biir Manchester United mu doon coéquipier tamit bu formidable nekk joueur boo xam ne tamit ku ko yàgg a seeraan xam ko xam ni ci milieu terrain Pogba néew na joueur bu mel ni moom. kii di Eden Hazard wax na ci Cristiano Ronaldo ne individuellement mën na am missi moo gën a nekk joueur bi gën a xarañ ci àdduna wala ci histoire waaye buñ duggee ci wàllum finesse wàllum pure football gëm na ni Chris dàqu ko ko te mënu ko ci fànn boobu ah, jàpp naa ni franchement comparaison boobu noonu kii di Eden Hazard juum na ci bien vrai que ñun xam nañ kan mooy Hazard mais nee na bu ñuy wax ci football football dëgg-dëgg waxuñ ci ay dugal ak yeneen mais football téebal contrôle yóbbu saawaay dàq ko ko. gars yi fii laay daggee vidéo bi di leen ñaan ngeen di woy di abonné commenter max de partage wax ñu seen xalaat ci vidéo yi aussi tamit yokk famille bi doole bu leen fàtte di wéy di abonné ci chaîne YouTube bi saa su nekk yéenay suñu doole seen doole mooy suñu doole peace. I'm out.